boo ñu daan wax benn ci sa weeru koor boo xamante ne doo ko fàtte ban la. alors weeru koor bi mu fàtte mooy weeru koor bu 1900 ndax ci laa mujj gi sa Abdou Aziz Al Amin moom woo ni ma mayew ndogu seegul ni dama la invité ñëwal mardi. ci waawoon. waaw parce que moom presque du waan génn ci waawoon. ñëw vraiment. ndogoom boobu nga xamante ni comme ni ñu koy waxee ndar day lal but ba but lépp ndeysaan. mu toog ak taalibe yi mu toog. Mhm. ci canapé bi à l'époque jour boobu mi ngi am benn atel. ma koy laaj baadu dara mu ni ma noo loxo yi ñoo xaw a sadd dafa mel ne rhumatisme la mu ñu xaw ko ko takkal noonu sol xaftaan bu ma toog ci wetam nii lu nag mu ni jëlal li jëlal ma ñëw mu ñam jox ma jël tàndar ma dagg jox ma genn wàllu tàndar bi laa lekk donc après ci la ñu waxtaan ci yu bari pourquoi mu marke ma aussi ci laa ko nii dama waxtaan ak président de la république bëgg ko jàppale jóge fu ma nekkoon mu ni ma naa créer mouvement politique. ak ah, loolu moo andi création ce mouvement politique bi. jour boobu la woon ma ne ko nag damay dem tàggu Serigne Abdoul Aziz ba mu jox ma ci digga mu ñëw mu ni ma oui def ko bi nga waree am sa yëfu bopp dafa yàgg ndax da nga am cër ci réew mi war ko jël. parce que pour rappel yaa ngi woon ak Youssou Ndour. avant ah yaa ngi avant. voilà bokkoon nga ci mouvement Youssou Ndour après j'ai créé un mouvement qui s'appelle ADN. ADN Alliance pour une dynamique nouvelle. qui est membre de Benno Bokk Yaakaar dans le régime de la majorité présidentielle. d'accord ADN may président bi te loolu jour bi ma mujjee gis ak Serigne Aziz lañ ko validé. bi ma ko woowee téléphone ni ko créé nañ mouvement bi mi ngi tudd ADN mu ni ma ah, loolu de mooy mujjibu ndax ADN 55 la mu mujjibu 55 la te mu mujjibu mooy jàppandaal. mooy jàppandaal mais su weesoo waxtaanu mouvement boobu leneen lan ngeen waxtaan professeur. Euh, ci Sénégal mu ne na ngeen fexe ba réew mi na dal te bu leen ko teg ci loxo ñi xamul ndax réew mi réewu xam-xam la kenn mësu ko yore te xamoo mu ci diine muy ci politique kon. yéen ñi yàlla xiir ci wuti xam-xam na ngeen fexe ba bañ ko fooye te bu leen nangu di ko jox ñu koy fooye waaw daf ci insister keroog ni ma nag na ngeen taxaw fexe itam na ngeen na ngeen xam ne dañoo bëgg ci yéen ñaar ngeen nekk ay doomu daara pire nekk ay intellectuel lu tubaab pire. loolu la al amin loolu la ma al amin mujj dénk waaw ne lépp na ngeen ànd kook yar waaw kañ. ndax maa ngi lay nettali lii ma ne ko ah mu ni ma Serigne Moustapha Mbacke dafa am taawam bu ñuy wax Serigne Cheikh Gaynde Fatma dafa demoon seet Serigne Abdou Lahad Mbacke toog ci saal bi bëkk néeg bi toog ci suuf Serigne Abdou Lahad dugg si mu sëpp cëpp cëpp ci suuf raam ba ci moom simmi mbaxaneem su jootal ko ñëw toog mu génn bëkk néeg bi ni ko ah Mbacke yow de def nga lu ma jaaxal de Serigne Abdou ma ko nettali de mm-hmm. mu ne ko lan mu ne ko ni nga toll di taaw ci Cheikh Amadou Bamba sëñ Moussa Mbacke di sa bàyyi ngay doomu ma cubb defoon naa ni nit amul ba nga koy sujjootal ba ngay simil wax ne mu ni ko sëriñ Abdoul Ahad dong laa koy defal su ma génnee ñépp defal ma ko mu ni ma xam nga lu ma la ci bëgg a wax mu ne ko déedéet mun ma kilifa. kilifa absolument. ñëpp doo ma ko kon loolu moo indi sa engagement ak euh, le chef de l'État.